781 82 04 wala sax gañi lu gëna easy do fay dara ajoutel Skype radio sunu kër l'info autrement du fenn fudul fii si sunu kër ci kër gi kër gi la maison mooy bambu. kon ngeen xam ne moom mosuma bañ a sóoraale ci lenn te jiituwuma fi ëpp ma fi xam-xam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 xam ne woon na dugg seen bopp. moom ma xëy ci loolu. ah président ne waaye nag ci loolu. ñu waxtaan waxtaan mu ne ma léegi je veux que tu ailles au ministère de l' intérieur. en président intérieur bi xaw ma lan la woon mais dama ko ragal kon loolu bi wax dëgg yàlla xam dafa xaw a diis parce que man daal technicien laa te daal si laa gën a nekk à l'aise mu ne ma daal il nga dem foofu parce que loolu moomu gënal.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 yéen a ngi déglu seen émission l'info autrement tey di nag di mardi le 9 novembre 2021 soxna Rama Diagne asalaamualeykum. waaleykum salaam salam Diawar Diop. yaa may dégg tey. ñu lay dégg bu baax a baax. macha naka waa France salaam Diop. waaleykum salaam Ahmadou sénégalais bi nekk Sénégal. waaleykum salaam sénégalais Euh, de diaspora hmm. waaleykum salaam le monde entier nga war maa ngi ñaanal ñi nga xam ne dañu tëdd ci hôpitaux yi yal na yàlla fëgg seen bopp euh, ci kàttanu yàlla màggu yonent bi dara maam borom Tuubaa ba ñu dellu seen kër amiin yaa rabbal di delluwaat ñaanal rek di wax ni ce sera toujours ma chanson hmm. sincèrement hmm. ça va vous tympaniser nañu nañu nañu defar kaso yi am na ku ko wax démb bu ñu yeboo defar kaso yi ndax ñun ñëpp dinañ ci ñëw xaw ma fan laa ko liiree. Mm. donc man dama ni nañu xool li yenu rek ñu def ko ci kaso yi. lu ko jarul jaru ko waaye nag lu ko jar na ko jar te bu ko jaree nañu ko defi dignement. wallaay loolu rek laa wax. Mm. di wax ni maa ngi ñaanal képp koo xam ne mi ngi toog tey di déglu rajo suñu kër foo ko mën a dégloo. Mm. ak lu mu la mën a fekk. yàlla na la yàlla yokk. may nga ko yàlla na la yàlla sàmm. ngeen yokk ba yëg ko vraiment yàlla yàlla fortifier seen alal bi ba mu ba mu jik leen jik seen euh, mbokk yépp daal amin di wax ñi fi jóge njabar hmm. yàlla na leen yàlla xare àjjana ñoom ñam fa fekk amin yaa rabbal alamin njabar di wax ni man Rama Diagne man Rama Diagne je ne reconnais plus le Sénégal notre pays hmm. te njabar am naa tiitaange torop parce que li nit ñi def léegi hmm. man fekkewuma loolu xamuma ko xamaanuma ko dama cee traumatisé te ñëpp ci traumatisé euh, njawar may laajte ndax suñu doom yii ñu jur nii ñu nekk ci sur le terrain ndax ñun ñoo leen jur réellement mhm. parce que euh, politique bu jaree dem man bëggoon naa waat sax ni njawar dootuma wax ci politique mën naa ko waat te bu ma ko waatee dinaa ko def waaye nag dafa ànd ci ñun bokk ci ñun mm. njawar politique bu demee ba ñuy dëmmante suñu biir et moment yi la la affaire yi li ñuy wax euh, affaire u saytaane hmm. dafay dugg ci biir gis nga affaire bi ce n'est pas le hasard njabar hmm. am na benn femme boo xam ni daa wasin ba pare jël muul njawar hmm. muul muul moom la dóor liir ba mu dee tu me diras infanticide la mais négaande yooyu nga ëmb juróom-ñeenti weer fukkeel bi xaw laa gaañ bu fekkee euh, farama ko ëmbal nag. ma leeral loolu faram moo ko ëmbal. mais bu la sax far ëmbalee sax nan ngay tiime li génn ci yow. Hmm. ci sa bis butit bi génn ci yow bokk ci yow. njabar nga yëkkati muur ni ko tell. Hmm. moo tax man la est-ce que ñun jarul ñu jóg sangatu. ñaan yàlla wàcce kaamil. ñu raxas ñu bañu pas set parce que xol yi ñu am léegi amu fi woon njabar. wallaay ñàkk gu metti gi rek. quelque que soit ñàkk gu metti bi ak ñàkk gëm yàlla bi xam nga kooku danaan kii ndegam maa mënut dundal sama bopp. Mm. waaye duma ma ko du ko mën a dundal waaye nga dem ko jox ko pouponnière yi nga xam ne mën nañ ko mën nañ ko dimbale yasa là-bas au Sénégal. topp seen bakkan mën nga ko jox koo xam ne kii tam amul doom nga signé ma jox ko ko. Mm. Euh, juge jox ko ko boog loolu mooy lii li kii mënumaa dundal lii dem ba tribunal mënuma koo dundal jox leen ko ko mën a yor am na fi fekk nañ ko fi fi lañ koy bañ a wallaay wallaay wallaay ma tiitaat nga wax. Mm. Kédougou démb tàng na. Mm. Moustapha Ngira euh, Girassi. Mm. ay ñoñam ak waa alkaati yi ñoo jàkkaarloo woon tulli nañ ko de. waaw. tulli nañu mbir mi nag. faaw ñu ñëw lu ñu tulli. nii nañ ko defee woon fële 3 mars dañu tulli woon benn affaire ñu ne fee commencé na rek ñeneen ñi mel ni dañ leen pikiir ñu continuer ko di ko di ko di ko def. ñëpp a ñam Macky rek moo ñamul ñëpp ñam nañu. waaw tulli na. ñi mos a jiitu mbir mi waaw. démb Barthélemy Dias génn na taxaw wax wax waxi góoram ndax moom moom góor la. Hmm. moom góor dëgg la. li wax dama ko xam ci mbiru ni muy waxee. su hmm. ma nee dama koo xam sax nee naa astafurlah ndax xam je n'ai jamais vu Barthélemy Dias dans ma vie à part télévision hmm. mais góor day nuru góor. day góore. voilà day góore. waaw génn na wax na. bu pare na dem wuyu ji rek. na gis ko gis naa ko. waaye damay ñaan yàlla. plus de trois mars ici ndax man yaay laa. su paree rek na dem wuy ji. waaw na waaw na wuy ji waaye nañ ci bis ndox mu sedd guy yaay laa njawar yaay lii rek la mën a wax boo gisee yaay ji kuy taxaw naan nan taal dëkk bi du jigéen. jigéen du taxaw mukk ni nan taal dëkk bi ndax ña cay dee nee naa la suñuy doom la ñuy doon. Hmm? suñuy rakk suñuy suñuy suñuy jëkkër. doo ci gis mukk boo compté policier bo xam dañ ko cee xoss mm. euh, wala par exemple ci dé c'est accidentellement ndax ñoo yor jumtukaay yi ñuy jëmale ci suñu ki kon nak sincèrement. Mm. jëlum réew wote yi ngeen di def ak euh, li ngeen di pousser les gens à bout ba tax ñom ñu taxaw nara nara nara def xaré ba dar d'ailleurs amna ko wax xaré ba dar lañuy def ngir yalla jar ko fi way way ku da nga war ni mott dem ñu Ablaye Wade defone xanaa du seen kilifa c'est Senghor du seen kilifa Mm. Abdou Diouf du seen kilifa ñooñu dem nañu ta dara bal tàkkul wala bu amee bal tàkki tamit nañ waxante dëgg ce n'est pas li fi nar li ñu nekk yëpp ñooñu ko teg. yéen a ñu ko ñooñu ñu ko teg yàlla na leen ko yàlla na ma ay car leen ay car leen yàlla laaj ay cari yoon. maa ko wax ay saay saay yu màgget lañu rek. li ñu teg waaw waaye moo tax yàlla na leen yàlla fay leen ko fii te fay leen ko fee yàlla gëmul ne la woon waaye ça ne veut pas dire que ñu mën a nekk njabar hmm. waruñoo waruñoo taar réew mi war ñoo taar réew mi ñu bugguñu loolu ñun bugguñu ko te xam naa ni képp kuy jigéen mel ni man kuy góor sax buggoo loolu eh. ndegam affaire jàmbur moo mën a xew fii ba ba ba ba jabaram taxaw na porté na plainte kooku sant Jaañ nee na lu tax ñu génne vie privée le médecin la hmm. euh, ñu génne vie privée ci biir euh, internet bi. Ah moom porté na waaw mais a ko wax waaye na porté plainte gars yi dañ koy génne de. ah waaw loolu ça n'a rien à voir jëkkëram moo ko bind. c'est une affaire publique Euh, ci beneen version la il paraît que la gars bàyyiwul woon yaa jabar bàyyiwul woon doom n'était-il pas malade ah. n'était-il pas malade point d'interrogation xam nga nunu gëstu rek bu nu gëstoo dinañ xam ku dee rek ku ku dee ku dee mënatul défendre boppam lu la neex wax am na benn audio fiite fuité ku leen xam man déglu naa audio bu fuité bi ni ko ni ko daw si doon waxee waaye wax fuité rek dañ koy yónnee ba pare ne fuité pour mu am attention am buzz nañu avancé voilà kon ñu avancé waaye hmm. daal man daal li may wax daal hmm. euh, marché Tiwaawan Njawar hmm. comme marché mën naa bañ a wax sax ci marché marché Tiwaawan te marché central ba ñu koy wax marché bu bees moom nit ña ndax dafa féete ci tali bi am ñu fa dëkk ndox yu salte yi euh, génn na les gens commencent à râler ndax dafa nekk ci wetu kër nekk bi te wetu yoon bi ci yoon wi nga xam ne tali bi ci la nit ñiy daw nit ñi daal di soppali yoon wi marché njawar xam nga sama idée ci marché yi dama ni su fekkoon ni Macky waxoon na benn affaire boo xam ne dani mm. pas de marché njawar ñun dañ koy def fii en France et ça marche très bien oui oui da ngay xëy lal alxames day naan dañ naan fii moo aye am na sax am na sax Dakar luuma lañ ko tuddee wallaay wallaay marché ajuma après waaw ajuma amoon na marché eh ajuma Médina dimanche mm-hmm. après d'abord dañuy raxas lépp yi raxaskat yi ñew raxas lépp dootoo xamé marché la mu mu dellu nekk garage ci euh, garage parti ci guddi gi euh, boo setee benen beneen koñ aye suñu ñamoon lolu dina bax hmm. parce que ñun marché yi njawar hmm. indi luñu dul jangoro man damay man marché damay gis ño xamni da seen seen xobu salaat bu bu roté barke serigne touba mbàkke njawar dañu koy jël ni ko xaas xaas ci ndox bi xol góos xol gloire té di lañu ñu ko ca wallahi wallahi wallahi moo yow dem nga ba marché ba nga gis njawar yàpp yi ni ko weñ yi ni ko ne ko saññee hmm. weñ ko saññe loolu loolu di nga ko gis fenn nga di ko lekk nen dafa euh, weñ day day dafa am ay kii ay ëf njaayeen yi de loolu wàññiwu leen dara waaw njaayeen yi moom ak euh, euh, lu mën a doon waaye njaayeen yi yow doo leen bàyyi moom doo leen mës a wàcc nga leen te war nga leen te doo leen mës a bàyyi waaye yaa ngi ñoom la waaye quel que soit alpha marché yi dafa marché dafa war a set njabar balaa nga koo xam yal na la yàlla fekk nawet Dakar njabar ba nga dugg ci biir marché da ngay séexlu dañoo salte ta kooku euh, Macky Sall dem na ba fële judduwaay wax ko waaye fa mu ko waxee moom moo ko ko waroon di jiital biir Sénégal comme ça am voilà moom euh, ci ci supermarché yi lay duggee ci supermarché yi lay duggee te ñun amuñu njëgu xaalisu supermarché donc taxaw di wax loolu daal yàq sa euh, wax la loolu du deug du yoon njabar mm. du deug du yoon man damay wax rek euh comme dañu am legui ko chroniqueur bo xamni mom dina wax les euh, euh, suñu journaliste bobu mm. lay xajal pour mu wax mais je vais dire une chose damay ñaan yalla damay jonkoñ ci suuf di len ñaan yeen sénégalais yi mm. accompagner dignement Barthélémy Diaz mais s'il vous plaît bu len tay les seen bop parce que 14 personnes jusqu'à présent on les a jamais jugées seeni yaay ñàkk na du sax benn indemnité bu ñu jël teg ko seen loxo ne leen dàmpoo leen ko mm. bu leen saraxe seen bopp pour politicien jaruñu ko mais est-ce que jar na affaire bi jar na coow sax soxna Rama man man niñ ko bëggee def coow ni est-ce que jar na sax moo li xew mercredi xaw ma ko njawar ah waaw loolu dëgg la de xaw ma li xew seen bakkan la ñu teg ci élection yi njawar dañoo bëgg yoo yoolee njawar mm. commencé nañu tappaas parce que bu ñu tappaas bi mëtul fu nit nekk préfecture yi wara a doxal dëgg def doxal ñu dëgg naan kii matul yow mëtle nga yow ñi mëtlewul ñu ne leen dugg leen ci biiru sàngam climatiser ko corriger ko foofu la ñu commencé njuumte gi mm. nëngte gi foofu la commencé mm. kon ison ont créé eux-mêmes leur propre bàmmeel ubbi ko coow danaa am waaye na yal na yem ci ñoom mm. ngir yàlla yonant ba teg naa sama baaraam fii jërëjëf soxna Rama damay comme que dañoo tàmbali lu bees Mouhamed euh, Junior Cissé. la ñuy déglu de presse am rek doog a dugg ci waxtaan. li ëttu yéen kaay tey ngeen koy am bés bu yàlla sàkk fii nii ci rajo suñu kër FM ci 3w point suñu kër point com ci biir émission bi di l'info autrement altine jàpp alxemes bu 16h jotee li ci yéen yi ñu fas yéene ci ànd ak Mouhamadou Junior Cissé. dal leen ak jàmm mbaa yéen nga ca Barthélemy Dias ak coowam pënd ba wureegul ni ki démb ba muy janoog taskatu xabaar yi ëttu yéenekaay yu bari ni ki tey daal dinañ koy xëye moom Barthélemy Dias yéenekaay bi di enquête naan ñu ñu xaar ko ni ki ëllëg àllarba gi fële sa tribunal wante daal dina yëkk lu mel ni xeme ñi nga xamante ni ñoom ñoo di nguur gi ak ñii di juge yi moom Barthélemy Dias daal dinay woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di askan bi ñu daal di taxaw temb amal ab résistance ñeel ab complot bi nga xamante ne bëgg nañ kaa dal ci ndoddam ak lum ci mën ci doon yéenikaay bi le mandat naan ñu benn fan kese dees mu jàkkaarloog sus bi moom Barthélemy Dias daal dinay dégenewaat beneen yoon yëkk lu mel ni mbeloxaan ñi nga xam ni ñoom ñoo di nguur geek justice bi Barthélemy Dias bàyyee lu leen dara noonee yéenikaay bi di 24 heures naan ñu Barthélemy Dias koñ tuur tasumit noonee moom Barthélemy Dias mi ngi sàkku ñu daal di koy àtte ci lu jëm ci procès bu ñeela mbiru pa Ndiaga Diouf bi Barthélemy Dias ci biir naan ñu ab mbirub complot lañ def maanaam dëgg sërëx lañ ko daal di lalal comme niñ defoon Khalifa Babacar Sall Ousmane Sonko mbala sax Karim Meïssa Wade noonee lañ ko fi bëgg a jële wante moom bile yoon du ko nangu benn yoon yéenikaay bi di l'info naan ñu Barth daal nay sonne la résistance maanaam ci gàttal beneen weeru mars lañ bëggaat mu amaat fii ci di diwaanu Sénégal ndax dina am subaam diit ak lum ci mënti doon daañu xam fu wànnentu di mu jékki gëtëm yéenikaay fi amaat ndax jàppal ñiy faree ci Benno Bokk Yaakaar daal dina ñuy taxaw temb di wax rek ne faw rek askan wi ibbi seen gët te bàyyi yoon mu def liggéeyam ci délinquant politique yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réew mi bokk na ci ñoom kii di Barthélemy Diaz Arona Coumba Ndoffène Diouf ci biir yéenekaay bi di Vox Populi naan ñu appel à la violence yi nga xamante ni ñoom waa Yewwi Askan Wi ñu ngi koy def li nu mel ab diversion kese la ndax jàpp nañ ne ñoom ñooñee daañu lajj ci élection yi ñu dëgmal keneen ki nga xamante ni daal dinay lajj metti ci élection yi bala sax ñu daal di koy koñe moom moo di Bougane Gueye Dany ibbil yéenikaay bi di source mu ñuy xamal 63 yi nga xam ne gëm sa bopp daal dinañ koy déposé ñeel élection locale yi ci autorité administrative yi ci gox-goxaat yu bari noonee dañ leen kaa bañal ani lan moo waral li nu mel moom Bougane Gueye Dany jamono ji ay rongoñam rek la yor ngir fompi naqaram yéenikaay bi di 24 heures naan ñu gëm sa bopp kañ jamono ji dañuy fuwee liste Benno Bokk Yaakaar yi ani lan moo si jaadoog li ci jaaduwul bu ko ñu daal di koy siiwal ba askan wi jot ko noonee ñu xamle ne dañ leen xeex yenekaay bi di l'observateur naan ñu Bougane Gueye Dany kañ dafa mel ni dafay déranger ñi nga xamante ni ñoom ñoo di pouvoir wi ndax a percée bu fulgurante bi nga xamante ni daal dina koy am fësal boppam ci giir Sénégal gi yëpp loole utal boppam tur tax na ba nguur gi jamono daal dinañ koy teg tànk bañ mu nooy yéenekaay bi di évidence di xëy di samp beneen laaj ñeel li nga xamante ni moom moo di élection locale yi ñu dëgmal Félix Diome dana mën a organiser ay élections locales ci jamono ji ñu nekk li nu mel la yéenekaay bi daal di samp niki tey ak lum ci mënti doon nañ ko dénk yàgg dinañu xam fan la ñuy mujjee yéenekaay bi di tribune nañu kujje politique gi moom ab ab ordre de bataille lañ jël maanaam ci gàttal dem ba jeex ci li nga xam ni moom moo di élection yi ak jalgati yi nga xam ni nemmeeku nañ ko nguurub Sénégal di ko def te dara dëppwut ak yoon ñeneen ñu jàpp ne lu ñuy def yoon la ñu ci biir yéenekaay bi di alerte quotidien mu ñuy xamal ne boulanger yi moom jamono jii dañuy grève ñoom ñooñee nga xamante ne ñoom ñooy jàmb mburu mi boo mayul nag daañu téye seen yoxo li nu mel tax ba diirub ñett fan mburu dootul am yéenekaay bi di critique naan mburu commencé wër jamono ji ci diwaanu Sénégal gannaaw ndakaaru région yi daal dinañuy jot seen wàll ku xëy doo lekk mburu xanaa nga dem uti lii di fonde maanaam monikala ku wutiwul fonde benn yoon di lekk pain riz texte di ñaaxaate mi ngi ci biir yéenekaay bi di Le Soleil national mu njiitu réew mi Macky Sall moom moomee Macky Sall ni ki démb bañ doon amal journée nationale force armée ya moom moomee daal dinay exhorté ñi nga xamante ni ñoom ñoo di l'armée bi ñu gën a adapté wu noonee ci lu jafe-jafe yu yees yi nga xamante ni mi ngi xaar lii di armée bi yéenekaay bi di Le Témoin naan ñun jiitu réew mi Macky Sall daal dina taxaw temb ngir wéyandi li nga xamante ni moom moo di montée en puissance bu l'armée sénégalaise bi ak jéego yu am solo yi nga xamante ni daal dinañ koy def ku def mbir bu jéggi dayoo mi ngi ci biir yéenekaay bi di réew mi quotidien mu ñuy xamal ne ab horreur dëgg lañ am fële sa Mermoz Sacré-Cœur ab mindaan moom moo daal di ëmb juróom-ñeenti weer noppi daal di wasin ba pare jël ab ko ci biiru liir bi nga xam te ni moom moo di liir bu tooy xepp bu mu wasin yees daal di koy dëggate mu daal di pàcc mu doon ab mbir bu jéggi dayoo keneen koo xam te ni daal dinay ñàkk bakkanam ca diwaanu Linguère la xewee waa ji dafa rey doomu baayam a jël jaasi daal di koy corete bam ne coreta mu ngoog chaque jour ak kaa bu bees Ndeye Marie tëjël ba suba jàmm ñu nuyu mbokk sénégalais yépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di leen euh, baalu àq di leen baal di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen jaboot di ñaan yàlla may ñu ñu fekk ko euh, ay at yu bari di toog di waxtaan di faram-fàccee les faits saillants de l'actualité nationale et internationale <clears throat> di nuyu mbokk sénégalais yi nekk euh, Europe ñi nekk Brésil ñi nekk Argentine ñi nekk fii ci États-Unis ak ñi ñuy tàmbalee déglu te nekk ca Sénégal ku ci nekk ñu ngi lay gërëm ci ñëw bi ngeen ñëw tey ànd ak ñun ñu bees ñi ñëpp ñu ngi leen di nuyu euh, dañuy fas yéene nag waxtaane li nga xamante ne tey moom la ñuy tudd ci ci kii bi li ma li ma waxtaanoon démb incha allah bugguma ci dellu si parce que nit pour defendre honneur am euh, jaral na ko muy song sax nit ku dee même bu fekkee nit ku dee boobu dafay bàyyi ay question yoo xamante ne euh, dafa taqal deru nit taqal deru famille waaye nekkatu fi te wax na raison yi nga xamante ne moom moo ko poussé moom mu rey ay doomam rey boppam waaw moom wane na raison yi nga xam ne moom moo ko moom moo ko tax a de def loolu léegi nag ay version yu nekk ñu ngi koy dégg na nit ñi defal seen bopp seen interprétation ni mu leen neexee rek mais jàngat bi daal mooy def nañ ko ci démb jàngat bi euh, mooy nit mën nga ko pousser ba mu ba mu dellu à l'état animalier nga xam ne lu koy wuutale ak nit ak animaux yi mooy sa conscience muy mbirum euh, docteur Faala boobu du ñu ci dellu siwaat waaw du ci dellu siwaat euh, ku ci am lenn nag loo xam ne interpretation boo ci def la waaw ñu bàyyi la rek nga nga def ko mais damay dafa am benn affaire boo xamante ne dama bëgg ñu wax ci tuuti dama cee bëgg a jox sama input te man samay position amul ci amu ci ay farfarloo man Sénégal moo ma intéressé faaw ma kenn waaye contre ma kenn aussi ba tax ku def loo xamante ne du yoon dañu lay faral wala ñu lay supporter wala ñu lay li américain yi di wax the easy the easy way out moo yoon wi nga xamante ne moo gën a yomb pour que yow nga rëcc ci situation bi nga nekk waaw loolu bu ñu koy def ay monstre rek la ñuy fal gis ngeen tey monstre bi jiite réew mi dañ ko doon seetal ay yoon yu gàtt te defoon na loo xamee ne mënoon nañ ko cee topp indil ko ay problème waaye boobu haine bi nga xamante ne moom lañu am ci ki njiite réew mi moo waraloon lépp loo xamante ne def na ko te du yoon ñu gëmm yooyu nag dañ ko war a dañ ko war a nag loolu dama koo dindi ba noppi ci man nag dama koo dindi moo tax am na yenn yenn position yoo xam ne su ko jëlee ah dañ lay woo naan la yow dafa mel ni da ngay affaiblir ñii wala laa nañu teg mbir yi ci dëgg saawaay nañ ko teg ci dëgg ak ku mu mën a doon mënuñoo xëy suba ba ngoon di wax ne président bi moo fi def moo fi def moo fi def alors que ñeneen ñi nga xamante ne ñoo bëgg a remplacer président bi bëgguñoo soppeeku du mën a nekk président bi moom saay-saay la ba noppi ñëpp xam nañu ko kenn dootu ko weranteeti ndax benn chanson la ñuy continuer di ko répéter rek ñu cee dëkk. mbirum Barthélemy Dias laa bëgg a wax depuis awakaawam nee na depuis le 7 juillet 2021 waxoon nañ leen ne dañuy comparaître ci tribunal ci mois de novembre loolu kay leer na mais nag. comme que dañoo am presse boo xamante ne dañoo xaat ñaar ñii ànd ak opposition ñii ànd ak nguur ñi nga xamante ne ñoo ànd ak nguur bind ay fen ak défendre nguur gi lu ne jaral na leen ko waaye ñi nga xamante ne tam dañoo contre nguur gi lépp lu ñu mën a gis lu dul yoon duñ ko dénoncer te loolu nag mooy la voie qui nous mène à créer des monstres politiques te loolu dañ ko war a moytu Republik bëggul loolu Republik bëggu ko république boo xamante ne moom la ñuy woowee dëgg dëgg dëgg république soxlawul loolu buñ la waxee ne loolu ne la di nga comparaître nga dem ci diggante bi dépôt kii am fi ñu ne la da nga war a dem lan moo ci indi ay dañu may def lii wala dañu may def laa gis nga fu mu toll ni fii kenn complot wu fi kenn ma ne complot bu amee nañ ko seeti ci yeneeni yoon su fekkee ay nit saay-saayu Abdoulaye Wade yi dañoo ñëw yore seeni xeer ne dañuy sànni ay ay ay xeer mais wutal ay nit yu sànni ay xeer wala nga toog sa biir maire yi ba ñu génn ba ñu ñëw di dugg sa vie nekk en danger parce que nag li ñuy wax li li bi di bind naan affaire bi lan lañ wax sax ne moom la euh, euh, euh, self maanaam kii la oh self défense vais chercher mot en en français légitime de défense légitime défense waaw mais légitime défense euh, défense l'arme doit être proportionnelle à l'attaque la réplique doit être proportionnelle à l'attaque nit nous la ay nga koy même bu nous un lañu te yow yaay di ay auto yu daw di dem ngay tirer mais wouté na ak légitime défense soyons sérieux soyons sérieux bo duggé tok nak sa bir maire ni ñi ñew daj daj buntu bi dugg ku ku dugg man nga ko fital mais duñu taxaw ca bop koñ ba ñemewu wuñu egsi di sanni ay xeer sanni xeer denc say fital rek ba nga nek en danger ñëpp gis vidéo yi mais pourquoi parce que Ablaye Wade la ñu contrôle ah léegi nag léegi kon kon kon loolu Macky Sall génn jaf yëfu seytaane dem jaale ji léegi ñooñu mu roon jaale moom moo leen di jéem a éliminer politiquement xam nga yëfu seytaane politiciens yi ñu ngi nii ñoom ñëpp ay dëmm lañu ñoom ñëpp parce que kuy sucer le sang d'un peuple appauvri par vos activités politiques yéen ngeen di duuf di ci am alal di utiliser la misère de ce peuple pour di am ay buzz ak ak di riche am liggéey kooku doo dara lu dul ab dëmm ñoom ñëpp ay dëmm lañu léegi nag pour léegi nag pourquoi le pauvre le pauvre am doit mourir pourquoi bu ñu xëyee tey ay politiciens di woote njub di woote di woote di woote gëm yàlla te bu guddee ñuy dem di ñu leen di dem di maase ji ñu ñu nekk ak ay jigéen di time ci xale yi ba doyal ñu xëy suba ñu andi leen ay problème ñu ne complot la fan la complot bi nekk gaayen moom laay laajte yow bu ñu lay tegal ndëgg sërëx bul bul dem foofu mais léegi ne li ñuy def mooy xolal victimiser wu ñu jël ay ni jàppale leen ah ñu ñëw léegi nekk suñu kaw nekk suñu kaw réew mi yore tous les pouvoirs dañuy dem bay laal seen jabaru xarit yi ci loolu lu ñuy jëm parce que boo yarulee sa bopp boo yarulee sa bopp musiba rek ngay jëme ngay jëme réew mi te loolu mooy lu ñuy dund tey ci réew mi ak ak saay-saay yi nekk ci kaw réew mi loolu nag dañ ko war a xeex benn yoon dénoncer tout bord mais bëgg ne man xoolal comme que man côté bii laa fekk rek waa nguur gi laay joxoñ waa nguur gi tamit doon ay saay-saay bi ñu amee doole képp koo xamante ne dañ yaakaar ne danga leen bëgg a remplacer ñu lay song est-ce que ñun Sénégal boobu la ñu bëgg man nekkuma fi di défendre kenn loolu moom xoolal dootu fi amati loolu xewi na koo ci kuñ ci jàpp rek nga wala nga am ay problème rek ñu ne dañ ma bëgg a complot na peuple bi ñëw yow da nga yore woon sa fital di di di tiire ay nit woo nañ la jugé nañ la yaa ngi dem mais woowaat nañ la mais demal da jël sa responsabilité nga dem ak ñi la doon puus di la wax tiireel tiireel danga la leen waroon yóbbaale parce que foofu la légitime défense amatul bi nga génnee dem di attaqué ñooñu te egsee gunu ña nga taxaw fële mujj gi yaa leen di yaa leen di fital sax ñoom ñuy tasaaroo ak seen oto ngay tiire nañu bàyyi affaire caaxaan yi waaye nañ ko bàyyi ku ñu ci woo na dem wuyu parce que mois de mars bi gars yi na ñu Sonko gis nga xam nga lan moo lan moo lan nit ñi yëfu sai sai. yi nga xamantene ki jiite réew mi moom la bëgg def ba du am adversaire mu ne la fiy toog ba faaw mais buñu amé ay antécédents yu ñu wara régler nañ ko régler ku fi jote tamit ak ben nit na nga dem régler sa problème mais pourquoi les gens doivent mourir à votre à votre place pourquoi nit ñi nara dem prison à ta place pourquoi ban njariñ lañu ñu amal ñom parce que dañuy parce que dañuy wax opposition mais am na am na mën nañoo am ay leader yu bëgg réew mi te def te bu jaree xeex nag xam nga lu jar a xeex xam nga lu jar a xeex Macky Sall fi mu jëmee réew mi ak élection yi ni mu koy organiser loolu la opposition bi waroon na loolu moo jar ay bakkan daanu loolu jar na ko bëgg a bëgg a nekk trois candidature loolu jar na ko looloo jar a wax mais ay nit ñoo xamante ne. dañoo am ay antécédents ñu war koo le léegi nag ngeen bëgg ngeen ngeen bëgg ne bu ñu leen jëlee kat moo ñuy waxal mais il faut que opposition bi booloo te xeex li jar a xeex ñu bañ a xeex ay mbir yoo xamante ne c'est personnel ku ñu jiir viol demal nga défendre sa propre personnel c'est pas la république c'est pas le peuple c'est pas l'opposition ku ci yara say fital tam di tirer c'est pas le peuple c'est toi lol di que xam ko ça n'a rien à voir avec le dossier Karim ça n'a rien à voir le dossier Khalifa Sall Il y a ay problème civil Il ay crime des crimes. ko wara régler leg nak il s'attend à ce que nit ñi ah, bu wala la man duma ku neex nag bu fekkee ne yow gëm nga waa ji wala gëm nga leen ñoom li ñuy wax buñ la wooyee bu subaa na nga dem bu la ko sa jaral bakkan jarale bul subaa mën nga dem mais man li ma xam ne moo jar bakkan dem ci mooy président bu wuyu bu saay-saay boo xamante ne dafa toog ba pare ne moom dootu fi jóge nag léegi fal ay mbokkam fal etnim ne léegi nag mu ngi seet ay possibilité ba bu gañee élection yi nga xam ne gañee na ko ba noppi nag parce que dès yeb ñu ko jouer ci biir ci biir organisation bi déjà gis ngeen ko ñepp a ngi kaas di wax ne pourquoi ñi ñuy rejeter ñepp ñom ci opposition bi la ñu nekk ñu sànni leen ben ballon de son yone leen ben gain bu ñu wax Adama fay mu naan leen ay ay ay ay pain chocolat di xas Macky Sall te lu mu am Macky Sall tax mu am ko lu famille am tay tey Macky Sall tax ñu am ko ak Ablaye Wade mi ñu ko fi andil waaw léegi nag kooku bu jógee nag di xas Macky Sall nag gars yi kontaan yee Adama Faye yee te fekk ñoom ñëpp ñoo kompaloo benn képp la du amul ñaar dugg génnal ci presse bi waxal lii dañuy dañuy éliminer sa liste yi pourquoi moom fi mu fépp fi mu def yëpp ñu éliminer ko loolu daf la loolu daf lay wan ne yéen bu ngeen di naree kaas ñu ne leen rakku jabaram éliminer nañ ko moom tamit mu ngi kaas mu àndandoo ak yéen di kaas ngeen defe na yéen a ci nekk fekk chaque jour ñu leen di nax yii yi réeroo wuñu Macky Sall mënul défendre démb Barthélemy Dias xëy tuba ne da koy toroxal lan moo ko waral politique Barthélemy Dias mënul ànd ak tey Khalifa Sall démb mu ko doon joxoñ di ko wax lu bon lu tax tey mu wan na Malick Noël Seck fàtte nañu Malick Noël Seck tey ñoo ñëpp jaaroon nañ fi tey Ousmane Sonko moo xew ku am bës ñu ànd ak yow il y a une autre manière de fair la politique sama gars ay marxiste léniniste ay ay socialiste ay démocrate ay libéral ñoom ñooy daje léegi di moo lay wan ne affaire bi tong-tong la dañuy séddoo réew mi intéressé wu leen ñàkk liggéeyu sénégalais yi intéressé wu leen seen promotion sociale moo leen intéressé seen promotion professionnelle moo leen intéressé parce que am na ñu bëri ci ñoom tey ci élection locale yi ñu jëm mooy doon seen premier boulot gars yi liggéey la ñuy wut te liggéey bi nag dafa dafa dafa vie survie la fa ñu yaakaaroon ñëpp ne teraanga am na fa teraanga amu fa teraanga ci Macky rek la nekk fu mu toll nii ndax moo uuf moo uuf leket gi moo uuf leket gi ñi ko neex la tànn na ñii ñooy am liggéey bi jox préfet yi ñuy organiser di rejeter nu mu leen neexee mais bu ngeen di lijjanti loolu ngeen waroon lijjanti gars yi waruñu woon sax nangoo dem élection loolu nga moo jar a xeex manifestation tous les jours ba ñu jot ci moom tàllal nu na ram loolu moo jar a def mais ku ci nekk yaa ngi seet naan ok xaaral ma nooyal fii di jàpp-jàpp picc bu ko defee waa ji jàpp leen di leen tëcc benn par benn di leen tëcc depuis Karim Wade ñu ngi leen di tëcc au lieu ngeen war a booloo seet lan mooy intérêt réew mi ñu xeexandoo ko ngeen di def ay ay ay xeex individuel ku ci nekk naan dañu maa piège piège bul ci daanu réew mi nag war nañu seetaat ak li nu fay bay yëpp nit ñi war a dem seet ay yoon ba ñu bàyyi dépendance bi ñu am ci pain dépendance bi ñu am ci pain doy na waar lool ndax fu mu ni nii bi saa yu amee am na ñoo xam ne bu ñu xëyee suba amuñu mburu rek seen journée day yàqu carrément quoi même bu fekkee ne benn daggatu pain te gis nga daggatu pain yi ñuy jox Sénégal du sax mburu man dem naa Sénégal mais billahi kilo mburu bi mun naa ko lekk kuma tegal ñaari kilo mburu mën naa ko lekk Sénégal ni ma doon mujj def mooy damay jël mburu bi ah pour bañ a sonal ñi nga xam ne sax moom moo nekk nii dama damay làqatu sax quoi da ngay dagg kilo mburu bi sandi saat kilo mburu bi ci beneen genn wàll gi pour mu pour mu duuf tuuti quoi macha allah pour mu xawan nuru pain yi ngay coob fii nii quoi oh. ay xottu kese la xottu la yow mais am na ñoo xam ne c'est psychologique tant que lekkuñu benn dogu pain pour ñoom lekkuñu dara dara dara benn fo boolu fonde moo ko gën benn boolu cere moo ko gën benn boolu ngerte gerte ak leneen sax moo ko gën ñu jugal sunu bopp ne bu boo lekkulee mburu te mburu bi dafa cher par rapport par maanaam boo ko calculer li ñu la koy jaayee ak ak poids am jaru ko quoi jaru ko air kese la fu mu toll ni ak sa ñaari loxo day day plat day plat mo lay amul ñoxit amul dara ñu bëgg ñu ci yoy nak xalé gaay war nañ ci xalaat ya ñu seet ay benen façon lek parce que mburu bokul ci ñun gaa yaa ci nambe bi de mais defar beñe sax ko gën quoi jënd sa farign nga defar sa beñe say doom di ndéké nga wañi nga wañi eh, diwliñ bi sax moko gën quoi wañi si mu gën boulangerie di ñu defal ay mburu di jàpp nit ñi ay parce que ñoom tamit jëlewuñ ci dara farine bi dafa cher ñuy lakk ñuy lakk courant bu dul jeex di ko fay seen normal des fois aussi ñu bëgg ko ñu bëgg ko yokk pour génn seen xaalis ak fay seen employé mhm. na ni ñu seet tourner trouver ay alternative réew mi nag bëri na ay bëri na agression kenn nekkatul en sécurité fu mu toll ni ñu ngi koy coob ci presse bi presse bi parce que dafa am benn adjudant de police boo xam ne dañ koo agressé dóor ko ba mu ne waalee nangu ay bagaasam yóbbu. léegi nag bu ñu demee ba nga xam ne policier moom la ñuy agressé ah. masamaak citoyen lambda bi. gars yi amul numéro booy woote bu ñu lay agressé comme boo nekkee bitim réew bu dee fii la nga ne 911 ah. wax sa euh, sa localisation gars yi daw si sax ñëw jàppale la. amul ah, yooyu amatul léegi nag agresseurs yi xam nañ ko léegi ni ñuy def mooy bu ñu xamee ne diw am na xaalis wala kër gi rafet na benn rafet yi te am easy access li ñuy def mooy dañuy dañuy dañuy booloo am na benn video de sécurité bu ko wanee il y a deux semaines Sénégal gars yi ñëw euh, ñëw ci benn kër gaare troc bi am gardien ci buntu gi ñu songu gardien bi dóor ko yenu sax ay briques di ko dóor ci kawam dugg ci biir kër gi songu vieux bi borom xaalis bi jël jël fa deux million dem seen yoon waaw hmm. te sénégalais yi dañuy denc seen biir kër yi xam nga léegi nag réew mi amatul sécurité. Hmm. ku yóbbu moom mu nga wut sa fital teg ko sa biir sa biir njëgënaay. le seul problème mooy est-ce que nit dina am psychologie mën a yore ar mu ci biir kër mën nga cee fooye sax rey sa doom wala sa doom ñëw jël ko di ci foo gaañ ci boppam. waaw hmm. ñu faaw ñu lijjanti agression bi moom euh, policiers yi la ñuy jàpp di duma. Macky Sall dem na ba xam ne même policiers yi muy utiliser ci manifestation bi mënatuñu ko léegi nag armée bi xam naa comme que ñoom Barthélemy Dias woote nañu nee nañu nañ leen accompagner parce que Sonko def na ko mu jàll. gaa ngi questionné ba léegi est-ce que procès dina am ndax li fi amoon mars fu mu toll nii dootuñu laal waa ji tant que leeru leen ne mën nañ assurer sécurité bi duñ ko laal. Hmm. te lépp mën na faa ta bi géej ah. lépp mën na faa jaare tàbbi géej. Mm-hmm. mën na faa jaare léegi nag moom it mu ngi essayer la même chose. Euh, maître Boucounta benn avocat dafa naa maître Boucounta Cissé la dañ ko invité ci benn télé mu ne bi Abdoulaye Wade en 2010 di forcé nee na réew mi jaxasoo ni mu jaxase woon dafa amoon benn group militaire boo xam ne dañoo dañ koo wutoon moom comme avocat au cas où bu ñu leen jàppee. ñu mën leen mhm. défendre ma nee na ñoom ëpp maanaam bu ñu gisee li jar jug rek dinañu jug jël pouvoir bi. <laughs> gisaguñ ko mu ne moom moom moom la ñu moom la ñu jëloon woo ko xam nga genre lu demee noonu boo ko waxee ci réew mu mel ni senegal normalement dañu la war a entendre. dañ la war a entendre seet loolu ngay wax vérifier vérifier ko parce que xam nga tamit ni ñi créer ay information ay buzz noonu rek des fois tamit c'est pour tiital la président moo xam ne militaire yi ñu ngi xaara ah. Macky Sall moom jar naa coup d'état moom Macky Sall naa coup d'état bu yàgg bu yàgg depuis bi muy def bi muy def euh, euh, nomination ethnique bi boobu lañ ko waroon njëkk a coup d'état tàllal noonu a ram ba mu na ñay ñu defaraat réew mi organiser ko jox ko koo xamante ne bu ëllëgee dina jàng ci kaawam léegi nag gars yi pour ñu jéem koo tiital affaire troisième mandat ah ñu ngi génne ay version naan ay lii amoon na fi man nag xaw ma ndax affaire bi dëgg la am mais quel soit alpha dañ ko war a déglu pour seet loolu ah muy wax noonu en public est-ce que nekkul pour pour wax yeneen militaire ñu ñu ñu waajal loolu yëpp dañ ko war a seet ndax bi ñu fi bëggee jàpp xalifa euh, Karim Wade ñëpp dañ doon génne gis nga ce pays là bu ñu fi arrêté Karim Wade le pays sera ingouvernable ñu ne nuus ñëpp ne pat ñi ko eenaloon ñoo ëpp xam nga des fois da ngay am ay ennemis te doo ko xam dañ lay jege tey ñi àndoon ak moom doon noos ñëpp tey ñu ngi ni ànd ci Macky Sall ku mel ni Ablaye Balde barki démb la génn naan Macky Sall maa trahi alors que lui le premier traître politiciens yi noonu la ñuy def dañuy jouer victimiser wu. comme que Macky Sall victimisé wona ba nek président ku jóg da ngay victimisé wu fu mu toll nii tojamaan bu fi japp mu victimisé wu raykatu nit buñu fi japp mu victimisé wu ne complot la waaw ñu ñëwaat ne Khalifa Sall caisse d'avance yi jàppal bàyyil ku laal Khalifa Sall yi di di ñu ne ko news ci kaso bi kenn waxul Sonko nag moo leen të fu mu toll nii moom dem na massage wu def na lu ko neex foofu moo xam ñun xamuñu waaye li ñu ko jiiñ jiiñ nañ ko mu ne leen mu ne leen mu ne leen ku laal rek réew mi tàkk te moom daf koo wax rek daf koo def nag kooku mooy guerrier moom rek moom li mu wax da koo def menacé wul waaw dañ koo laal rek mu réew mi réew mi teel fu mu toll nii ñu ngi hésité jàpp picc lañ koy jàpp. Oh. même bu fekkee de son côté ñi mu àndal des fois dañuy exagérer naan dañ koo bëgg a rey fii kenn bëggu fi rey kenn bu ñu la bëggoon rey suba dañ lay ray reyuñu fi kenn mais nag gars yi ko lii mooy li xew ci réew mi ah ay victimisé wu ay ak ak ak ay soopmaan Sonko moom du soopmaan moom li mu leen waxoon mu ngi ci ba léegi te ñemewuñu ko te ku mel ni Sonko nag moo baax ci Macky Sall ku mel ni Sonko moo baax ci Macky Sall ndax moom dafa ànd tubaab yi rek daal di fàtte le peuple sénégalais léegi nag il faut koo xamante ne kon moom day nekkal la peuple sénégalais looloo fi xew ku am lu mu yokk ñu jox la kàddu gi. Euh, euh, Ndiawar waaw Babis. Ndiawar na ngeen di maa ngi nuyu ñëpp ci panel bi soxna Rama. ñu ngi lay fay. waaw ñu ngi fay faal dugg mais parce que dama yéex a dugg mën a changé ba. le hmm. sujet est très intéressant ayca euh, man dama bëggoon rek euh, repra recadré waat waxtaan bi sur euh, parce que comme na ko waxee sànq yow faraloo kenn man pour man affaire bi question jugement de valeur ah. hmm. parce que tey information yi nekk di génn ak yu continuer Euh, explication à charge de dafa bari du côté de la dame. Mhm. c'est du côté de l'homme affaire yi mu ngi Sénégal. Le monde pour moi, il faut que nous ñëwaat aux fondamentaux quoi. Mhm. Et bu ñu nous ñëwaat aux fondamentaux Nous nous poser la question Nous, en fait euh, nous la vie là en fait euh, bon sens c'est ko jox Sénégal quoi daa dund. Mhm. ban sens au Sénégal. wallaahi wallaahi parce que dame bu dem ba di rey doomam teg brique Euh, war nañu posé question mooy dund boobu lan la am Sénégal lan mooy place su xale. lan mm-hmm. mooy place su euh, euh, xale bu juddoogul c'est-à-dire fœtus. parce que Ndiawar dafa am benn affaire bu am dëkk boo xamante ni gars yi duñ ko wax mais nit ñu bëri ñu ngi dem mag dem ay umra di ñëw mais bu ñu bu ñu bu ñu dawee duñ dem duñ dem àjjana seen biir kër yi mu ngi fees dala ay mët. Mm. ñoom seen i maam dañuy avorté seen seen yaay avorté seen seen doom avorté seen sët avorté hmm. avortement mën naa leen ne sax que tuux yamba sax ak avortement benn la Sénégal dañ koy waxtaane ah ay yéen jigéen yi yow mosoo hmm. avorté yow man dama ko doon dégg rek naa ko mais affaire bi c'est maintenant man de du ma ko man dégg naa ko kii judd na rey am na yoo xam ne dañu judd sànni hmm. mais loolu yëpp man bu ma nekkee xale mosuma dëgg

mais euh, ji lu def nu mu ree euh, doom dama ñom mm. mais un politique mom lañu def régime yi. Mm. xam nga régime dañu créer condition ñu daan we mm. ñoom bu ñu dem dañu reyale ay nit. wallaay c'est un petit raccourci mais réfléchir leen rek Ablaye wat ñatt ñu ñoo fi dé Abdou Diouf ñaata nit fi dé depuis 88 c'est à dire que suicide suicide boobu le fait que moi je vais mourir mais je vais faire tuer des gens je vais affamer des gens, je vais empoisonner, je vais détruire des gens. Mais lol, c'est c'est devenu une réalité ou c'est pas une réalité. Hmm. Amna ay sëriñ ñu ko def wala ñu ko deful. Hmm. Cheikh Béthio bu balam fi jog ñatt ñoo fi dé. Hmm. non mais parce que ñun il faut que nous réfléchir ñun suñu bop ñun sénégalais ñun. en réalité. quelle est la place de l'enfant dans la société sénégalaise xale yi gisuñu fi ay xale ñu tej fi si benn sëriñ sëriñ Modou Kara événement bo amu fi l'enfant est-il un objet dans le Sénégal Ou xale c'est une personne qui est dotée de dignité au Sénégal Talibé, ñu leen quelle est la place de la religion dans la société sénégalaise La religion non parce que nous on est un pays à 80% de musulmans quelle est la place ah, de ah, l'homme dans la religion 20% de 20% de catholiques. Hmm. mais nous, nous, nous, nous, nous Nous nous vendredi amul même mais nous, en fait cest que nous bon nous hmm. comme nous nous salon de massage nous nous nous nous nous nous cest dire que maintenant on défend le mal cest dire que nous, nous, nous, nous mais gis nga Sénégal. Hmm. so bu ñu demoon dañuy jugement parents yu bari dañu dem àllaaxira à cause de la maltraitance de l' enfant. wallaay wallaay dëgg Sénégal mooy dëkk boo xam ne xale la ñu xale xale la ñu respecté wul. xale xale xale toroxal hmm. xale sacrifice mystique hmm. xale euh, surtout ay albinos Sénégal nit day am sa sa doom mu feebar xaw a doyadi nga jël ko ne ko ñaani sarax. bon mm. dina peut-être soxna Rama wala elle peut le comprendre parce qu'elle a vécu au Sénégal mm. mais en en réalité man pour man hein, sincèrement bon hein, mm. j'aime un voyager en Europe gis nga fii boo génnee dëkk yoo mënti gis ils ont le même niveau d'éducation xale yu muy gis fii école baa ngi fii muy naar muy kenen muy kenen muy keneen da ngay gis ñu yar seen doom tous les jours te ay jigéen lañ parce que góor pour la plupart ñu yobu sen dom école fi muy nit ku muy muy toba muy kenen mais pour lan Europe yi boo fi nekkee gars yi jox la imposé da nga war a yar sa doom ni nga ko wara yare et que ñun suñu dëkk lool amul. wallahi wallahi wallahi wallaay. nga dem si kër boo xamante ni kenn du lek dara à kenn du cest borom kër gi si boppam moy maire bi maire bi borom kër gi top toppatoo ñu lek mm-hmm. ça c'est pas c'est pas une forme de criminalité une famille. mais la nouvelle la nouvelle génération là mo ñu togg. la nouvelle génération actuelle mo ñu togg. Oh. te pourtant maire yi dañ doon togg parce que dañ leen yare woon si loolu dañ yare woon mm. si yore kër yu gisee problème yooyu nag problème mu religion mm. problème éducation mm. problème politique si def nga toog ay farba nga ñu lay naan ay vingt cinq milliards yow le président tu as vingt cinq milliards procureur général amul vingt cinq milliards commandant brigade gendarmerie amul vingt cinq milliards commandant de brigade police commandant brigade armée ñu yore kaaraange dëkk bi juge amuñu sax un milliard seen compte yow personne lam laa nga war a am 25 vingt cinq milliards wallaay wallaay wallaay wallaay nga dëgg de les frustrations dans ce pays un Moustapha Cissé Lo taxaw ne la immeuble yëpp ay jaay jaay jaay yamba la. Hmm. nga war a toog Sénégal kan ngay gis. Hmm. ay Farba Ngom ay Farba Senghor ay Serigne Mbacké Ndiaye ak keneen ak keneen. c'est-à-dire que Sénégal Dominique nit de feu, dafa amatul njëriñ si dëkk mais lolo, andi lii. tey hmm. des références je suis désolé moi j'ai rien je vois les combats qu'il mène je respecte en partie le combat bien que ne i méthode d'accord ma mais tes référence politique yi kan la Khalifa Sall. Khalifa lu mu def Sénégal yëpp quoi en temps PS. tey ñooñu ñooy doon ay référence ay leader de l'opposition ay leader de l'opposition ah oui tey bar tey tey Khalifa moom moo war a mun a dajaloo opposition bi yëpp ñu en partie pour ne leen kaa ñu def quatre grands pour ñu won gaa ñu ñooy grand ñu après booy dañu topp suñu mais mais mentalité boobu la mentalité quatre grands mooy joué si ko rek ay quatre grands la woon hmm. tournoi quatre grands c'est-à-dire mentalité boobu la ñu yore quoi gars ñu ne la ñoom dañu jàng ñoom dañu nand c'est-à-dire gars yuy diriger dëkk bi tay tay jii lolo fi nag tay ay Barthélemy j'ai rien contre Barthélemy Barthélemy ban niveau de jang la wara am suba pour yori deug je respecte l'homme je respecte Assane Diouf je respecte son parcours je respecte tous ces gens-là mais tay tay ji intellectuel sénégalais c'est-à-dire serigne si nit yu jàng deug dëgg doo leen gis ñu gën wax ci mm. alcorane non tay ku jang ku jang catéchisme de ku maîtriser bible da ko deug mu wax tay universitaires yu jàng da lañu gis ñu dëgg ñu wax mais lan mooy mën a am loolu mooy que société bi tay les individus sont livrés à eux-mêmes et c'est la conséquence là et le pouvoir d'achat de ce pays li wallaay wallaay wallaay moo tax suicide bi am quand il y a un dans une société Rasulullah je suis pas je pars des faits pour venir à la théorie de Emile Durkheim bu leen ma wax nag suba lu mu jàng école moo bare bopp bi dafa jàng dafa dof man dofuma dina jàpp ma maa leen gën a lucide

suicide en Europe avant l'eau individualisme mais méchanceté mon andi suicide y mm. té suicide ñu ngi ñow amaat li lu mm. la par rapport à la police ma ma baram bet bet. xam nga rapport société bi wax de mais dama leen di jox exemple bi am documentaire dafa am ben éléphant bu ndaw mo jékki-jékki mag di ray wa village bi hmm. gars comprendre ñu ñu ne non éléphant bi jinne la dëmm la dugg fi fii fi éléphant bi bu mu nekké xalé la ñu rey ay parents villageois yi ñoo ray ay parents éléphant il est arrivé à se libérer il a gardé cette haine hmm. moi personnellement je vous dis que j'ai la haine contre ces gens-là

Ah, église bi. Mm. fële Sénégal di mujj a sëriñ sa homme politique yi que ñoom ñaar ñoo benn lañ. Mm. jërëjëf Papis euh, si si Sidi Bouya mu ngi ci ligne bi Jean Djiba mu ngi ci ligne bi ma jox leen kàddu gi ku ci njëkk a wax rek baax na. Ah. yow naa Sidi Bouya fi jiitu Sidi Bouya ma jox kàddu gi. Ah, waaw suñu jabar maa ngi lay nuyu di nuyu Soxna Rama. ñu lay fay. ñu ngi lay fay hmm. donc malheureusement nag kii mujj kii dugg ni léegi jotuma dégg lu la wax eh, dama dama dama leen fàttee jox retour bi maa ngi jégalu man si si man la dama takk casque bi rek fàtte leen jox retour ah kon loolu la mais li mu doon wax neex na de bon maa ngi dégg rek nga naan wallaay ma eh, léegi la non papis fall xam naa ne après ko ah papis fall ok moom toujours moom man de sar saraxul la rek moo ma dese woon saraxul la Voilà l'union égale lui-même. Oh. <laughs> waaw bon li li nga wax xam naa ni liñ ciy teg waratul bëri gis nga njawar hmm. ay nit ñuy wax te fekkee dañuy wax pour dëkk bi hmm. nañ wax seen akulaay taala hmm. mooy dëgg nag parce que tamit nag fekkee dañaa bëgg a defar lu baax il faut dëgg di ko lal waaw mënuñu nekk fii nag parce que bañ nañ diw wala contre nañ diw rek donc lépp loo xam ne da koy yàqal rek même su fekkee ay sëb la dañ ci ànd. Hmm. parce que loolu dinañu rattrapé. dëgg la mooy li nga wax nii moo rattrapé actuellement nii tout tout suuf wàdd hmm. actuellement nii loolu moo ñu dal fu mu nekk nii. wallaahi tu vois donc du coup parce que gis nga affaire Barthélémy Dias bi waxuma la depuis d'ici le 7 juillet mais moom si boppam moom moo def appel. wallaay. c'est que tamit la. moom ne woon nañ ko ba pare deux ans de deux ans xaw ma six mois ferme te jotoon na tëdd six mois yi mu war a indemniser xaw ma ñu le vingt cinq millions donc nag moom moo def appel. donc ñun nañuy wax dëgg parce que tamit nag gis nga lépp lu ci xew ëllëg ay nit dee ci wala yu demee nag ñi nga xam ne ñoom manipuler ni ñi dañ xam ni ñoom tamit dinañ partager si bàkkaar boobu ça tamit si il faut il faut ñu xam lool parce que nit kii euh, ak daal wàllu xëy ka faayili yi mooy ku ku digle lu baax yaa ngi mel ni ka jëf wante ni ku digle lu bon tamit yow ak ka jëf yéen a yéen a yem. Hmm. loolu tamit il faut ñu xam ko. tu vois te ñu bàyyi di manipuler nit ñi bàyyi suñu doom yi ñuy yoole parce que doomu baadoolo yi kese kese amul si benn politicien bu ñuy gis mu téye loxo jabaram loxo ay doomam ñu génn rek si marché amul ñoom ñëpp dañuy tëju seen biir yi. wala sax duñu nekk sax si dëkk bi wala ñu yóbbu sen seen oto yi tëgg leen foofu tu vois parce que ñu doon su preuve bi rek mooy ñi ñu doon lakk seen i kër bañ fa demee tëkkuñu leen foofu mooy que jot nañ rawale seen bopp. Mhm. kon nag man damay wax ak mooy jeunesse bi laay waxal Sénégalais yi xam naa ne Sénégalais yëpp nit ñi déglu ñàkk a participer si rajo bi sans pas di ko dégluwoo. Mm. ñun dañuy toog di seetaan yi yenn émission yu mag yi duñu participer mais ñu wala ñu ngi leen donc comme que kii mi ngi nekk ba Kaolack di di wax di di defal ay retour yu nga xew. Hmm. am na ñu mooy nekkal foofu ñooñu su heure bi jotee ñu ngi toog ñoom ñooñu di déglu. wallaay wallaay wallaay man ñooñu lay waxal. Hmm. ñooñu lay waxal nit soxlawul taal dëkk bi soxlawul toj dara nañ am seen fulla am seen carte bu bés ba jotee ñu dem wote ji pour man amul beneen xeex bu gën a efficace loolu. lépp luñ ko def seen peine perdue parce que kuñ si tëj heure boo waroon jotee su jotee doo mën a voté parce que yaa ngi ci kaso bi dem soo yore sa carte ten nag fu mu nekk nii carte rek moo fi mën a jël nit ñi ba nit ñi foogal nañu Abdou Diouf mënu fi jege ndax carte <coughs> yàlla def na nañ ko carte bi jëlee na ko fi carte jël na sa Abdoulaye Wade Macky Sall dañ carte dëkk fiy jël par A ou B mu def troisième candidature pour mu ñàkk a def moom carte moom dëkk fi jëlee bi mais man li ma àndul mooy ñuy woo nit naan lañ jaay leen seen bakkan te ñoom duñu jaay seen bakkan ñoom ñu ngi nekk seen ay oto ànd ak seen i yi ñu leen di défendre ba peuple bi ñu nekk fii ñu leen di yoole ñu leen di rey di leen mate di leen gaañ kenn du leen jëndal ordonnance kenn du leen defar kenn du leen assister si dara quatorze personnes dee na fi et puis loolu lañu bëgg a def jurisprudence et puis c'est vraiment malheureux loolu sax dafa waroon tax ñoom ñu kiit muy comment on peut tuer 14 personnes jéemu leen wax si justice boobu yéen wax si ay justice am ci baat la mu caal dafa yabaate la mais waxut dëgg ñoom foofu lañ waroon tàpp sur la table mais il faut qu'on fasse la justice pour les 14 personnes tuées au mois de mars mais non non une personne doit xam L'affaire affaire bi mi en cours tu vois te bi moom si boppam moom moo yëngal non il faut qu'on arrête yow maa ngi ñëw foofu. voilà salaamaaleykum Jean Djiba maaleykum salaam Diawar. waaw ñu ngi lay ziar waay. waaye di ziar la ziar ñëpp waay maa ngi di nuyu yéen ñëpp commencé ko ci studio bi bu mujjee wax Sidi Fall. Hmm. gars yi waaw maa ngi nuyu di nuyu Soxna Rama. Hmm. maa ngi fay Jean ku nekk di joxe sa xalaat. wallaay joxal xalaat. man man sama xalaat mooy. Hmm. amul dëkk buy soppeeku te ay nit ñi ci teew. dëgg amul dans ce monde là amul. kooku

yow qui manipule la justice yow qui manipule Barthélemy Diaz il a demandé un appel xam hmm. mais Barthélemy Diaz dañ ko jugé que Nangoul ci décision de justice jox ko. moo tax hmm. demandé appel pour nous setal ko. Hmm. mais l'on lay demandé parce que bu bàyyee condamnation boobu dafay porte préjudice c'est day nekk ci casier judiciaire que c'est un homme politique. il va être pris il va être pris moo tax demandé appel pour cour d'appel fétal ko. Hmm. parce que Macky Sall na ni non seulement il était en légitime défense te ñom xam nañ ni fétal yi mu yoroon du ñoom la trouvé ci Ndiaga Diouf mais Ndiaga Diouf am na ñu ko yebal. Hmm. mu dem fofu c'est du moom kenn mo fa nekkoon. wallahi y' a pas de témoin y' a rien. Hmm. Barthélemy dem na une fois au tribunal il est le seul à se présenter là-bas du mbokk Ndiaga Diouf Pape sa du fa dem. Pape Ndiaga Diouf Pape sa du dem tribunal. mais xam nga kooku c'est un procès boo xam ni mais il a raison de de de deram la bëgg dafa bëgg a setal deram. wallaay dëgg la deram mooy maanaam du moom moo ko rey. Mm-hmm. loolu la bëgg a gëmloo nit ñi. parce que fetalam mu ngi ba léegi ñu téye police. Mm. il a dit hier depuis ba léegi fetalam yaa ngi ci commissariat ñu téye te ñoom xam nañ ñi bal bi ñu doon ak fetal bu mu yor du moom moo rey Ndiaga Diouf bu ñu ko siège u PDS lañ jóge dem attaqué mairie ba pare delluwaat siège u PDS.

regardant un euh, jeune bi yëkkati drapeau mu door ko bal booy bi dee. wallaay wallaay loolu est-ce que jar na jarul enquête. ah jar kay. mais des régime ko non régime yu mel noonu. du carte moo leen fi jëlee. Hmm? ñooñu xeex moo leen fiy jëlee. wallaay dëgg te xeex boo hmm. gis nag il faut mu am ñu dee dina am ñu ci dee. Hmm. c'est pas maa ngi fii moo tax may wax loolu boo gis mais fii France révolution les gilets jaunes la ñaar nit ñoo ci perte ay bët. yaa ngi si. ak yeneen ak yeneen parce que dafa am lu ñu doon xeex.

naan ñu tey rek maa ngi dégg benn cité boo xam ne 3 mois amuñu ndox. 3 mois ci ne xaw xaw ma ban cité la. tey maa ngi dégg journal ñu koy wax 3 mois amuñu ndox. Mm. ñooñu ñooñu bu ñu génnulee xeex lan mooy régler seen problème lan non wax leen ma rek lan mooy régler seen problème. Mm. lan mais gis nga révolution boo gis. Mm. ak régime yoo gis en Afrique du carte moo koy jëlee xeex. wala dax ko mu def wala coup d'état. loolu rek moo mën a changer les Sénégal li ci am nii ay Ablaye

te yow ñu gis ngay dem di def tournée économique ay ay nervi yi door ay nit ñi di ko gis ci télé ñu koy wane. di door ay nit am na ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay garde corps. waa BIP ak waa GIGN. wallaay colonel gendarmerie bi di leen wax ñu naan ko eh yow commandé woon tu n'as pas d'ordre à faire. à donner non on ne pas d'ordre de toi. waaw mais moom mais mooy nekk affaire wala Sénégal ne gisoo loolu. mais saa régime yu mel noonu doole moo leen fi jëlee nañu bàyyi di wax. di naan bu kenn yebal sa doom Sénégal dëkk jàmm la sa faw. loolu du ma ko nangu. Macky Sall xeex moo koy jëlee ci dëkk bi te xeex nag il faut que mu am ñu dee dèjà quatorze personnes dee nañu mënuñu sax justifier les quatorze morts la ñan ñoo leen rey yow mënuñu ko justifier. ak ci yenn circonstances la ñu leen rey waaw ak ci yenn circonstances la ñu gis benn policier tiré benn boy. image koy ci ci internet. wallaay wallaay wallaay wallaay. daw yegg auto police dellu commissariat. oui amul suite. kenn ku ci wax. Hmm. mais quand même gars yi boo gisee naaj da ngay ne naaj a ngi nii. Hmm. Eh, n'essaie pas d'essayer de de blanchir rek wala de jéem a setal. c'est un régime dictatorial. c'est des je m'en foutisme. Hmm. dañuy jéem a xoxatal sénégalais. il faut que sénégalais am fulla bu tal nii dañuy dee. ba gars yi toog fii ba saa yi la neexee ko ne leen rey. na gars yi xeex jëlee ko fii man loolu laa gis. ngeen baal ma wax ji nag bu fekkee am na ñoo xam ne vraiment. jë jë yaakaar nañ ni xëy na jaww Jean lan lan mooy sa input li li li euh, euh, euh, avocat bi wax ne en deux mille dix amoon na ay militaires yoo xamante ne ah, ah. dañ ko contacter mais yow yow loolu ci sa xalaat yow. Boucounta Diallo c'est la Boucounta Diallo mais kooku mais kooku dañ ko war a déglu. Lansana Lansana kooku may kooku may avocat ah laasana ko président Guinée bi. Ah, Guinée bi président Guinée bi. ah président président Guinée bi ñu bi ñu tëj bi ñu kii nii moom mooy avocat am. Ah. kooku lu leer la wax. lu leer la wax dafa ne. Hmm. ci nguuru Ablaye Wade un groupe de vingt officiers ñëw ñu gis ko ne ko dëkk bi fu muy jëm nii. Hmm. bu weesoo fii ñoom dañu jël seen responsabilité jël dëkk bi te ñu ngi préparé jël nañ ko comme avocat. Hmm. pour bu affaire bi avorté. wala bu ñu leen naree pour ci demee ne leen défendre. Hmm. mais bi ko rek Sonko lu muy attaqué nii police ak gendarmerie. Hmm. neexuma man neex na ma de. ah neex na la parce que dama ci xam. ah, ah oui. <laughs> yow de li ci xam bëri na dama nekk dudd ci gendarmerie màgg ci gendarmerie exercer ci xamul tax. Ah. dama ci xam ñu di ñu di ñoo xam ne lii rek moo mun a tas gars yi révolté wu. Hmm. parce que boo Ousmane Sonko di leen di duut fu mu leen war a duutee. dina am ñoo xam ne bokk ñu fi te xam nañ ni ñu ngi leen ciy boole te fi ñoo ñu ne bu boobaa dañuy gis seen bopp. xam ni yooyu kenn du leen ci yóbbaale parce que gis nga Ablaye wat hmm. bi muy jël nguuru Abdou Diouf dina la xamal tey loo xam ne tamit amoon na tamit ci nguuru Ablaye Wade ah boo demee jam ñaajo biir brigade jam ñaajo am na ay barrières yi ñu fa mooy barrières yi ñuy teg pour baare tali bi waaw dañoo doon réunion pour en deux mille ñu génne ay résultats yoo xam ne favorable a Diouf ba pare ñu baare Thiès nga test les forces militaires yu gën a kii Thiès a nekk ay commando waaw ay bat blindé ak yooyu. Mm. matériel armé bu ko xam nga Thiès a nekk. waaw gars yi dañoo bëggoon bloqué entrée Dakar joxe ay résultats forcé Abdou Diouf mu toog boo am ay officiers yu taxaw ne leen du fi dal. du fi am tey du fi am ëllëg. kenn du ñu entraîné ci ay kon au long de jeu. la nga xamul Ablaye loolu la xam après bi muy bi muy paree mu jël le le de la gendarmerie là colonel Badara Niang mu def ko directeur port. defee leer leer leer leer récalcitrant de l'armée ñoo ñoo ne woon du fi am tey du fi am ëllëg hmm. les nañ ko génne quel qu'ils sont te kenn du fi seetaan ñu fi taal dëkk bi xam nga gars yi dañuy naan ay ay Macky Sall gis naa ko tey muy def semaine de l'armée daf di def ay discours religieux bu baax gis nga armée di hmm. fa nekk ci mécontent hmm. gendarmerie di fa nekk ci mécontent police di fa nekk ci mécontent donc ñoom xam nañ ko sax buy nit ñi di wax naan dafa jënd matériel de répression matériel de répression boobu au nom de Dieu les forces ne tireront jamais le gars qui a tiré sur le Golta sax gars yi dem nañu ba identifier ko xam nee du policier affaire bi la woon ba gars yi yóbboon. tu vois commissariat yi ñuy ko tenue. ah gars yi wax nañu ko. mais kooku dañ ko war a arrêté parce que vidéo bi dafa leer naññ te mu àndaloon xam nañu kan la. duñ ko arrêté mais duñ ko arrêté bu doon policier ñu arrêté ko bu doon policier. Hmm. ah. Hmm. bu doon policier dinañ ko arrêté jàpp ko tëj xam nañu suril la. moo ñu bañ kooku c'est un tireur d'élite bu ñu ko jàppee bu ñu waaye mais mais mais civil ça laa illah mun nga dem mun nga dem armée nekk un vrai tireur nga def nga libéré dem nekk ci ay société garde naa ak de ki ko filmé sax moo ay parce que dafa xam ne booy bi lay visé. mu mu mu mu zoom out. mu zoomé out nga gis bal bi dem ne teel jam booy bi booy bi toj. mais du gis nga événement yi amoon mois de mars lu ci lu ci lu ci gars yi def policiers yooyu yëgoon ci kaw kër gi nekk en face kër Ousmane Sonko di tiire gars yi ci kaw. waaw di di tiire policier moo fa dëkkoon di tiire ay fital. te nekk na benn benn espion fa dëkkoon. waaw. d'après les dires de Sonko ah. ma ne d'après les dires de Sonko. waaw kay d'après les dires de Sonko parce que waa ji après dañ ko toxal lu tax ñu déménager ko. ah. lu tax mu déménager lu tax mu déménager waa ji gis nga le pays là. Hmm. le ku fii ne woy jàmm moo baax ci dëkk bi Sénégal benn la non Macky Sall xamul loolu. àll bonni Macky Sall la wax de. xamul loolu Macky Sall épreuve de force la xam Macky Sall doole la xam Macky Sall dégg faalewul kenn wax la loolu. Hmm. Macky Sall faalewul kenn kenn kenn ci Sénégal. du hmm. sëriñ du kenn ku Macky Sall faale. non sëriñ si xam nañ ko sax sëriñ si xam nañ ne Macky Sall faale wuñ leen ñoom ñoom ñemewuñ ko ah sëriñ si dañuy maslaa nii rek mais ñemewuñ ko ma ne la Macky Sall population bi rek ñoo mën a jëflante ak moom hmm? population bi jafe waaye waa APR ci seen bopp tax doo leen déggati luy wax xam nga léegi ay rek lay génn di wax hmm? <laughs> non ci mburoog soow mi la bokk moom ci mburoog mi la bokk parce que foofu bu ñu fa jógee dootuñu dem dootuñu existé wallaay wallaay wallaay foofu moom bu ñu ko jógee dootuñu existé moo tax moom rek mooy génn temps yi ci di wax lu ne. Hmm? mais doo gis benn waa APR génn di wax amatul oh, amatul. oh c'est triste merci beaucoup amatul merci Jean. c'est dommage vraiment ngi jégalu encore ku nekk li nga li nga li nga li nga li nga yaakaar ngay wax ah nga jël sa responsabilité wax li nga yaakaar man li may wax. dama ko dama ko gëmaa ah. mhm. man li may wax rek laa li ma gëm rek laay wax wax dëgg yàlla mais des fois nga nekk ci benn situation yu ko quoi billaay wallaay taalaay ah ma jël ma jël ma jël ma jël sama taalibe bi salaamaaleykum salaamaaleykum alo Maram waaw yaa ngi may dégg. waaw lay dégg léegi waaw. yow salaamaaleykum waa rajo bi. waaleykum salaam. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen baal ak di leen baalu ak te di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal seen njaboot. nga la koy ñaanal yow tamit amiin mais mais dëkk dëkk bi jaxasoo Rama eh, Rama maa ngi lay nuyu di la ziar di ziar Jean Djiba ak imam Seydou Boulé Njawar tey dama yeewoo lu ma naqari. maa maa ngi man de ci laa dëkk man. dama yeewoo lu ma naqari ndax eh, Njawar. Hmm. sunu sunu jeunesse te gouvernement bi deful dara te loolu moo waroon a tax ñun ñëpp nit yi génn ñi dëkk Sénégal. wallaay wallaay wallaay wallaay. parce que parce que ñun ñun ñi nekk fii bitim réew def suñuy suñuy pexe ba ñëw dëkk fii établir fi suñu taraanga. waaw. suñuy soxla di faj soxla keneen. Ah. di am possibilité faju di lekk ba suur. lekk ba suur sax da wax na cinquante pour cent la parce que am na ci ñoo xamante ne dinañu tiim lekk xalaat seen mbokk yi nekk Sénégal seen appétit coupé ñu mën a lekk te am nañu añ ak reer ak ndékki bay njoganalu di def leneen. ci laa bokk ci ñooñ laa bokk de. Mm. saa yoo tiimee lekk doo xëy suba ba ngoon jot mbooleem ku dëkk Sénégal nekk sénégalais pur sang mm. doo xëy suba ba ngoon jot te sa nekkul Sénégal wala waxoo Sénégal wala nit woowu la wala nga woo nit wala nga am nouvelle Sénégal te saa yoo leen déggee mm. sa journée yàqu bu dee guddi sa sa say nelaw jeex ñu ñu nekk ci loolu jeunesse bi toll ci ci dix-sept ans dix-huit ans jëm vingt-cinq ans di di di braver désert bi ñii di jaar ci géej gi ñii di fay xaalis di dee te ñoom ñëpp ñu ngi toll ci seen ci seen diggu doole war a war a tekki jàppale seeni waajur hmm. war a takk jabar war a reproduire am njaboot wallaay wallaay a assurer seen avenir ak loolu yëpp nit ñaa ngi continuer di ñëw ba léegi nii te am nañu ci ciy dee hmm. ñan ñi dugg si dëkk bi am fi ay difficulté tey dama yeewu saa waay dafa demoon entraînement benn xaritam woo ko. Hmm. di ma ko laaj. Hmm. mu ñëw egg si ne ma ne ma diw mu lay laaj te de daf la soxla c'est urgent mu woo ko. Hmm. ndaw si ne ma man boo gisee ma woo la. yow da nekk sénégalaise nekk julit te dañoo am problème ma ne ko jàmm. mu ne ma dafa am benn xale boo xamante ne mu ngi dëkk Misira xam naa papis. boobu génn léegi dina xam Misra fan la nekk ci zone Kolda bi. zone Vélingara Rock. Misra waaw Misra. waaw xale bi xale bi vingt def na cinq ans Italie mais clandestin la ci boat people yi la jaar yorul këyit. ndeysaan ndeysaan. ndekete dafa amoon tuberculose te xamu ko. léegi léegi méningite ñëw ne ko saraax affaire bi en l' espace d' une semaine mu terrassé ko mu nekk dans le coma végétatif. ay ay ay machine ñoo ko téye actuellement d'un moment à l'autre mën nañu dindi machine yi mu dee lu métti laa lay wax nii bi mu ngi ma fekk ma tëdd ci sama hmm. lal di di di ma dara hmm. David daf ma ko wax sama aj ma jaxasoo ci taxawaay bi hmm. ma woote di di di di laajte te bu loolu amee ñun bu ñu dëkkoon ci dëkk bu normal xale boobu bu defee cinq ans Italie nekk clandestin yoru këyit dara jóge ca sud ba ñëw boo fii ça veut dire que liggéey na ci tool yi. Mm. te condition yu métti yi ñuy nekkee mën nga fa jëlee feebar bu nekk xëy na mm. loolu topp na ko xamu ko. wallaay wallaay ba méningite ñëw dal ko. te famille italienne moo ko récupéré jël ko def ko seen doom yore ko ci seen kër ba mm. ñooñu ñoo ko yóbbu hôpital. <laughs> à travers benn association bu ndaw soo soosu doon collaborer ci la xamee xale bi woo ma di ma ko wax xale bi mu ngi tudd Demba Balde. Demba Balde. mu pël pël la ñuy làkk. waaw waaw mu ne ma ñoo mu mu ne waaw misira dëkk. te def na cinq ci dëkk bi amul kayit ma nga Italie foofu noonu. léegi nag waaw léegi nag loolu moo ko dal ñoom ci province Varese la ñu nekk benn dëkk bu tudd Castiglione Olona. Castiglione e Lona famille italien boobu ñoom ñoo ko jël kii ko bi mu nekkee ci situation bu metti bii nag am na benn nijaayam xam nga rek nijaay dañuy wax ne sa rakku yaale mais fii bu ñu waxee Zio ça veut dire que sa magu papa la wala sa rakku papa wala sa sa sa sa sa ñu contacté kooku wax ko ko kooku bi mu ñëwee fii ci dëkk bi vingt quatre heures la fi def moom aussi amul këyit day retourné parce que demee suba dafa war a jàkkaarloo ak commission bi ñu lett ko wala ñu firi ko waaja xamal leen ne même bu gaañoo aussi ñoom buñ ko yóbbu woon Sénégal ñoom amuñu luñ ko jëlee de Dakar yóbbu ko ci seen dëkk oh. kon xam nga ne problème am na wallaay wallaay wallaay italien dañoo mujjee jël seen responsabilité def seen kii ba contacter pompe funèbre yi. Oh. pour ñoom ak benn communauté musulmane bu nekk foofu pour ñoom ñu ñu ñu xool nan lañ koy defaree yëfu jullit au cas ñu dindi kii yi. Ah, pour ñoom ñu mën ko jullee sangu ko jàppale leen ci pour defar ko ñoom ñu jël ko ñu jël en charge. italien yi mu nekkoon dañ ñuy wax yooyu dañ koy waaj a dindi. léegi nag loolu la ma dal si woo. di ma laaj lan laa fi xam ak lan lañu ñu war a def affaire jullit yooyu noonu. ma mm. moo moo tax mu nekk lu ma metti. Oh, masa lu ma metti parce que ñun bu ñu nekkee suñu dëkk amuñu fa sécurité. duñu fa lekk ba suur duñu fa naan ba màndi amuñu ndox mu baax suñu ay doom duñu jàng. duñu faju ku amul xaalis doo faju te boo fajoo tamit du la tere dee parce que duñ la faj faj biñ la war a faj. Mm. kooku noonu doom investissement la ah, nga xool ni ngay def ba takk sa jabar di ñaan yàlla yàlla may la ci njaboot ngay topp di kurkuri ak sa doom ba mu jóg hmm. taxaw wala taxaw place su mu bravé vents et marées désert fu kenn xamul ñëw boo hmm. fii ak lan la ay mbokkam ñàkk ci moom mu war a ñëw ba dugg ci dëkk bi cinq ans amul këyit mu hmm. wóor la ne kooku boo maytul consulat bi sax xamu ko bi ma wootee di laajte information consulat bi man 2016 ba ñuy renouveler carte d'identité pour élection yi laa fa gëj. Mm. ndaw ko fa nekkoon def fa lam ko def biñ ko rappelé yóbbu ko portion centrale dañ ko toxal yóbbu ko Togo la nekk comme ambassadeur. Mm-hmm. benn gaa bu doon politique fii moom di politique président moom la ñu jël nommé ko consul njaw ñun fan la ñu jëm. Mm. boo bëggee passeport dangay dangay da ngay da ngay nuyoo nuyoo murit wala wala duñ la defaral passeport réseau la boo bëggee déclarer sa doom noonu boo bëggee lii noonu ñun ci lool la ñu nekk. Hmm. ñun ñëpp poste yëpp poste euh, diplomatique et consulaire yëpp c'est politisé y a plus de diplomate ñun nan la ñuy def. Ah. kon kay lii moo war a tax nit ñi nekk ci dëkk ba nga xam ne ñoom ñoo xiif mar rafle am problème mu faju ñooñu ñoo war a jóg affronter leen. yooyu Ablaye Wade ko fi indi. mais bu leen bu bu loolu yëpp bu amee bu bu kiiwee fii fi mu ne nii foo taxaw boo newul nu mandat duñ la duñ la faale. Abdoulaye Wade daal moo fi indi yoon. ñun ci loo ci loolu ci loolu la ñu nekk. loolu nag moo war na stimuler nit ñi ñu jog jàkkaarloo ak ñi wax ak ñoom ñu lett leen wala ñu firi leen parce que nit ñi tamit sonn nañu. Hmm. mënoo jur sa doom mu toll boo fii yow même buñ la gàdduloon néew bi amoo loo ko jëlee de Dakar di ko yóbbu dëkk ba. Hmm. il préfère ñiy jël seen responsabilité pour pour defal ko liñ ko war a defal. Hmm, dafa metti mooy questionnement bi Papis Fall laaj rek lan mooy ndax Sénégal xam na lan mooy bakkan. mais nag kuy souffrir. Eh, ñun ñii nga xamante ne ñun ñoo ñun ñoo nekk ñi do ñi dëkk en dehors du Sénégal ñoom ñoo xam valeuru nit parce que dëkk ba leen accueillir wan na leen ne nit. dafa am valeur non dañ leen wan na ñoom ay nit lañu moo tax. waaw. Mm-hmm. loolu mooy loolu moo ñu moo dimbali ñu nekk ci biti mais ñu nekk biir Sénégal ko ci taxawoon di ko expliquer mu mu bees la ay loxo parce que talu la lu mu mm-hmm. lekk la tal ñun ci loolu la ñu nekk mu ngeen baal ma ak euh, maa ngi leen di maa ngi leen di baalu ak di leen di leen euh, souhaité bon daal moo dal tey ñu indil moo tax euh, réew yi yi ñi ñuy déglu waaw lu seen gox yi nañu ñuy woo di ñu ko di ñu ko raconté quoi lii daal boobu laa xëyee tey ji mu jaxase wax dëgg yàlla ndax boo yoree njaboot ñu taxaw ñu tasaa tasaaroo ci àdduna bi xamoo lan mooy xew ku bul wax mukk mënumaa dal mën naa dal ku ne mën na laa dal wallahi wallahi mën naa dal ku ne wax dëgg yàlla metti na euh, trop leen ma ak est-ce que kenn ku ci bëgg ku ci bëgg a yokk dara amul kenn ku ci bëgg a yokk dara waaw sëñ Jawar waaw allo waaw waaw maa ñëwaat tamit waaw Sidi Bouya waaw waaw man li ma ci bëgg a yokk mooy que hmm. xam nga li ma wax tout

est-ce que dañu reyante dem ñu affronter policiers yi wala ñu dóor leen ay bal ba am li ñu am civilité moo leen may ñu jàng am liggéey am li am tànk loolu amuñu ko mënuñu am lenn si lu ñu te nag mu ngi jéem a di fexe di bay bayal des choses yoo xam ne c'est à dénoncer parce que on ne peut actuellement au Sénégal politique bi fu mu nekk nii hmm. violence bi dafa ëpp tey da ngay bokk sa rakk hmm. wala sa jarbaat wala sa xarit hmm. ngeen xuloo à cause d'une personne boo xam ne dara leer la wallaay wallaay wallaay wallaay li ñuy défendre kenn xam ko hmm. te y a une animosité boo xam ne kenn mënu ko expliquer on défend une personne personne ne le connaît personne la preuve en est mooy que bi fi li si li ko fi dal ba mu ko fi dalee avant moom muy génn di wax ñu bëri dañoon dama fa xamu fa ba ki nga xam ne mooy cadre parce sax dana xamul xale bu jigéen bi. Hmm. comprendre ku nañ dëgg nag. Hmm. su ñu wax nañ waxante dëgg njawar parce que hmm. nag gis nga fii kenn bëgguñu ko kenn bëgg Sénégal. ñoo suñ fi nekkee di fi rayante ku nekk am nga xarit wala mbokk boo xam ne chaque weer yi sax ay cinq cent franc. da nga koy may parce que da nga xam ne Sénégal dafa metti. tu vois wante du ñu nekk fii di wax naan nit ñi dañ génn nañ dem rayante te yow doo doo rayante. ah maa ngi dégg waa ji di di nekk ci otoom di def laay naan moom mooy général bi moom du ki na xale yi jënd ko dem rek mais mais mais c'est lâche. Hmm. c'est lâche d'être à l'extérieur. Hmm. derrière ton téléphone. Hmm. wax naan ni ñi dem leen rayante ji leen te nga toog fi nga toog. man su may woote dara maa si njëkk. nañ wax dëgg su fekkee dañ mais Barthélémy Dias Barthélémy Dias nee na day génne day génne ay mbokkam ñoom ñooy jiitu. voilà. ay doom ay doomam ay doomam la wax. nee na ay doomam ñëpp leen génne ay doomam ñu jiitu ñoom ñooy jiitu. waaw ça c'est courageux yeneen montre exemple. Mhm. mais gis nga. Mhm. Njawar dañ wante dëgg trop facile. Mhm. être à l'extérieur donner des fausses informations li ngay wax maîtriser woo ko. li ngay wax xamoo ko. lépp si ay en lañ ko teg ci ay bitik yi pour ñenn pour bëgg am ay vues pour ñu leen di koy bi wala yu xamul ci Facebook bi kenn xamul dañ parce que lépp li ñuy def dañ koy monnaie. wallaay wallaay wallaay gars dafa duñ tënk yàlla dañ koy def pour monnaie. yow dañu wante dëgg. wallaay wallaay nit tey kenn di saaga di wax ay ay ay ay mensonge yi ñu di ko seetaan nit kenn di wax dëgg kat di la seetaan. jërëjëf Seydou Bouye. ah. waaw mais mais mais mais man man man bëgg a Ah. ci ci ci ci tax kóllëre bi nga xam ne nit ñi yàq seen kóllëre. waaw ñuy saagante. waaw Jean. te kooku xamuñu ko xamuñu ko. waa allez-y. allo allo oui rapidement nag. a ah, ma ne. kii na waaw. waaw non waaw d'accord rapidement. Hmm. bon c'est pas c'est pas pour répondre à uh-huh, parce que uh-huh. ku nekk rek sa wax ne sa xalaat ngay wax quoi. wallaay wallaay wallaay wallaay. xam nga man personnellement. Hmm. nous. Hmm. qui sommes à l'étranger. dookooruñu.

ku ci nekk ak sa xalaat ngay ngay demee quoi. Mm. man dama ne. Mm. man personnellement. Mm. ah dëkk dëkk surtout Afrique président yi fa nekk boo xamee ni dañuy manipuler justice di ci ay carte loolu umpul kenn. wallaay wallaay wallaay wallaay ñu gisee ko. wallaay wallaay jël ay carte d'ambour yu nekk ci France di ko yóbbu Italie. wallaay wallaay wala di ko yóbbu Maroc loolu gis nañ ko. nit ñi gis nañ ko mais ñu mel noonu nga yor fichier électoral nga ne yow kenn du xam fichier bi fichier baa ngi mel ni yore yaa xam ne ci nekk. ah mais non attends. nga ñëw léegi gars yi di defar ay liste électorale ku mel ni le a de Kédougou là il a il a gagné combien d' élections locales. kooku mënul defar liste élection. Mm. ñaari élection locale bu nekk maire dëkkam. Mm-hmm. kooku defar liste nga def liste am baaxul. dëgg la mais dafa am yoo xam ne. non dañu waxante dëgg rek quoi. jërëjëf doole rek moo ko mën a faj. Macky Sall moom Macky moom jàmmarloog moom moom moom c'est une nécessité moom. moom c'est un loolu moom. loolu moom survie la moom quoi parce que Macky Sall moom moom li mu bëgg mooy ku koy wax. naan naan bu kenn jug moom Macky Sall moom loolu la bëgg a dégg moom tam am mu la. waaw Macky loolu la xam. Ah. waaye bu xalaatee fi ñoom xada fi jaar ak ak ak ak ak Saddam Hussein. mais ko yéen ñu la ñu mën. jërëjëf jërëjëf sax te buñ ko waxee nit ñi di ko dégg buñ ko mënee appliqué bu dalee seen xel def ko bu dalee seen xel. def ko au jeex jeex jeex na tàkk jeex na tàkk jeex na jërëjëf gars di gërëm euh, ñi intervenir ñëpp di minutes di jeex na bëgguma ko weesu di gërëm ñëpp képp koo xamante ne dégg nga fi lu la neexul ñu ngi lay jéggalu ku fi dégg aussi loo xamante ne lu am njariñ la nga kii ko Papis Fall xam naa suis désolé je ne pourrai pas te prendre parce que 90 minutes yi jeex na bu ma du ma ko weesu soxna Rama ma jox lañu ñu tàggoo suñu waay incha allah.